Mamadou Diop nag secretaire général ànd defar Kër doon benn tànk pour jaamaarloo jàkkaarloo ak archidiocèse bu Dakar ni ko ñoo lànk ñoo bañ waaye jàkkaarloo ak di jaamaarloo ak filifili ni ko ñoo lank ñoo bañ di fàttali li dox suñu diggante ak archidiocèse bu Dakar mu gi toll ci deux cent un hectares

nako nguur gu bees gi xam waaye archidiocèse bu Dakar na ko xam di wax ne ñu nettali rek wala ñu fàttali ni 89 ba 92 jaamaarloo bu mel nii amoon na fi suñu diggante ak filifili filifili yóbbu yëfi ci yoon bi mu yóbboo yëfi ci yoon moom filifili dañ koo neenal ni ko amoo fi tus

ni talaata bii ñu génn tombeeg 25 juin fii ñu taxaw la labbe yi ñëw ànd benn élément cadastre ànd ak descos ñëw fii ci li population bi yëgul bëgg a suuf si waaye bëgg a suuf si waaye bëgg koo sàkkal pexe waa ànd defar Kër Moussa jóg fekk leen fii repousser leen leen waaye nag mu am menace ndax jàlloo bu Cadastre nee na ñoom dinañ dellusiwaat te bu ñuy dellusiwaat dañuy ñëwaat ak renfort bu ngeen fi ñëwee di ngeen fi fekk ay rang yu fort. laaj bi samp nag laaj bi samp mooy naka. le keur musse santé fi lu upp junniy xarnu ñi fi ñew barki Dembo ndjay ne ñoo mom suuf ñi fi ñew barki Dembo ndjay ñan la fili fili la ñi fi ñew barki Dembo ndjay ñan la la bay la mënuñoo moom mom si lool lañ ni moy laaj bi samp nan lañ def fan lañ jaar ba mom suuf señ bi loolu nguur gu bees gi naa toog muy dox toog muy dox googu ñoom moom lañ jëfee te boo gisee it xeexu ñëpp ñoom mooy dañoo yaakaar yoonu réew mi justice réew mi dañoo am yaakaar ci moom ne dana delloo waa Kër Moussa seen moomeel dana delloo waa Kër Moussa seen suuf dàq fili-fili mu jóge fi ak njabootam ndax moomul dara waaye dàq arsu joseph bu Dakar mu jóge fi ak njabootam ndax moomul dara lii lañu ni nako son excellence le président de la république Basirou Diomaye Diakhar Faye ak le premier ministre Ousmane Sonko bi nga xamné askan wi téw fi tay ñu ëpp ci askan wi ci ñom lañ porter won choix dal ni Diomaye moy Sonko Sonko moy Diomaye loolu la askan wi Lila ci ñom li lay war a suuli yaakaari askan wi buñu yaqki yaakaar gi ñu amoon ci ñoom ndax fii la waa Kër mu Moussa yaakaar pour bay pour tuur fi seenu ñàq pour sàmm fi waaye pour suba ñu dëkk fi suuf suñu bakkan suñu suuf suñu bakkan suñu suuf suñu bakkan